jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix su tractera nga ak poche def dara fan yéen a ko dégg ci wàllu aj màkka waa jaay weeg yi ci aju yépp incha allah yàlla yàlla sàmm ko te gën koo dëgëral sëñ Mbàkke maa ngi woon man ci bi nu jógee ci koor gi épreuve yu nu borom bi subhaanahu wa tegal nu natt ci sunu koor te ñu xam ne koor gi ndeke du woon xiif képp ak mar waaye dafa am lu nu borom bi subhanahu wa bëgg jàngal ci koor gi ndax koor mooy tax nu man ko ndax illa léeg-léeg sunu borom bu nu waxee dara day wax illa ja ca nekk ba mu ñu waxee julli def nañu tanhaanil fasha wal munkar bu ñu waxee asaka def nañu yu zakkihim lu ci nekk def ñu koy wax bi koor ñëwee mu ne laalakum tattaquun taqwaa jooju nag mooy moytu yu ñuy tere tey jëfe ndigal yi ma tolloon ci ndigal lu sunu boroom wax waatul buyuta min abwaabiha ba indi woon ci ñeenti règle yu am solo dem bi ma yëkkat jotaay bi ma tolloon ci ku jaar ciw yoon di wut xaalis mbaa ngay liggéey liggéey ba mën a doon boo ko jaaree fa ko war a jaare am résultat yomb la mu ne waa daa jóge bitim réew rek dégg ñu naan ganaar yi ganaar yi <clears throat> mu daal di dem tabarkalla wuti ganaaram am ci lu takku dem ci benn barab ñu ne ko dañoo soxla nangam ci ganaar loola takku mu dem rendi yépp def ci oto ba yët leen ñu ne ko am na ñuy ganaar moo ki ganaaram ba fa mu jàgg mooy mu yóbbu ko mbëbës ci ñoom sëriñ Fall <laughs> waaw juróomeelu xaayida bi ci waxtul buyuta min abwaabiha ci qaayida quraaniya yi moo di alxadiisu ma annaas mooy waxtaan ak nit ñi ak wax ñoom ñoom alxadiisu ma annaas mooy li ñuy def nii noonu li ñu yàlla nattoo maag sëñ Mbàkke Sylla ñu mel ni noonu bu fajaree nit ñi taal seeni rajo di nu déglu hmm? waatul buyuuta min abwaabihaa daf nuy jàngal nun li aay jàngal ñépp ndax al aaya turshidu ila anna al mu'mina an yaslaka tariqa al munasiba fi l dañoo bëgg yàlla daf ne jullit bi bu fekkee day waxtaan bu jàngee wa'tul buyuuta min abwaabihaa mooy daa war a jaar waxtaan wa ca yoon wañ ko war a jaare xam tem bi mu war a waxtaane ba noppi xamal ko ñam koy waxal lu ko moy boo waxee lii tey bu subaa lële ngay wax bu ginnaaw subaa nga wax lële <laughs> waaw suñu waxtaan maag benn baas dafa am benn benn benn tem bu daan daw ca rajo ba mu jékkam yàgg benn bis mu ne waaw tem sàng moom lu mu doon <laughs> mooma nettali ko ko bu ne waaw kay waaye ndeysaan kenn mësu koo gis rek waaw kon nun ñii di waxtaan dañoo war a xam munaasabul munaasabul munaasabatul xadiis xam mawduu bi bi bi yayoog moom ak xam yoon yi nga xam ne ca lañ koy wax ba noppi xam waxtu wi nga xam ne moom la jago ba noppi xam nit ki ngay waxal waaw ba noppi xam li kulli maqaamin maqaala wa li kulli majaalin majaala wa li kulli xaadisatin maqaama soxna Njinde Géey gis nga yii waxtul bu yootu min abwaabiha bu nit boole yi xam ko ba noppi jëfe ko bu waxtaanee waxtaan wa am njëriñ waxtaan wa mën naa jokkaloo waxtaan wa mën naa changer yi nit waxtaan wa mën naa njëriñ mooy yoon wi day xam waxtaan wi lum laaj xam mawduu bi xam yoon yi nga xam ne moo ca gën waxtu wi nga xam ne waxtu wu loolu la naay wax suñu mbàkk si la ni waxtu wii may waxtaan nii ni may waxe ci conférence kàddu gi kawe su ma ko waxee woon fii am ko wàññi rajo ba mu fay fay ko ma tax suñuy door a tàmbali te suñu yaram tàngagut <laughs> te nit ñi yeewooguñu may wax rabbi israh li sadri wa yassir li amri <laughs> waaw noonu lañ koy waxee ndax fajar gi heure boobu nit ñi yeewaguñ léegi nag nga yëkkati ndànk ñu yeewu nga yëkkati ndànk ñu yeewu ba ñu yeewu nag nga wax ca kaw waaw amoon na benn président bu nekkoon Guinée ñu ko wax Sékou Touré Sékou Touré di sànn Ahmed Sékou Touré yal na ko yàlla yërëm ñi daan dégg ay waxtaanam noonu la daan def buy tàmbali da ko wax ci suuf bu yàgg nga dégg rek mu koy songu waaw moom yàlla mayoon na ko ci wàllu googu moom tam ci wàllu communication waaw Sékou Touré bu Guinée ndeysaan boo masaan jàpp rajo Guinée jamono yi nekk kub kub oh toto tubaarkàlla français daan làkk mais xaw ma français mais façon bi mu ko daan defee eh, neex na waaw la américain ba waxoon waaw xaw ma li ngay wax mais ni nga koy waxee nii neex na ma ma ne quoi wasalaam ca sookoon ba fa maître Wade di ñëw doon indi kaamil ba ñu tafsiroon ndeysaan sunu maam ji Ahmed Hadj Ahmed dem ca sookoon nit mën naa ñàkk xam li kii di wax mais façon de façon waxin wi ci lay am ñoom professeur Songo Songe ak ñi mel ni ñoom eh, seen jotaay boobu ñuy def te xalifa di ko jiite yooyu soo toogee di leen seetaan kenn ku ne bu jëlee kàddu bu bu waxee ba daaneel da nga xam kii ban façon waxtaankat la waaw ban façon communicateur la waaw ñoom ñëpp nag macha allah yàlla yàlla sàmm leen waaye daal xam waxtu wi di cee baax xam waxtu wi di cee baax ma jël misaal bu fekkee nit dafa faatu ñu di ko waajal. waxtaan wa fay am bokkut ak buñ ko romee ba ñëw bay jaale diggante waxtaan wi ak waxtaan wi dunu benn kiy waxtaan ci céetit bokkute kii waxtaan ci dëj bokkute kii waxtaan ci ngénte waaw terme yu ñuy nuyoo it boorutu bokk waaw par exemple buñ doon waxtaan loo jenn waay ci céet mu daan ne bismillaahi rahmaani rahim tabaaraka lazi biyadihil mulku allazi xalaqal mawta wal xayaata foofu munaasib boobu dañ naan ko mënoon ngaa jël leneen lu bokkut ak mawtu waaw ila axiri ila axiri tabiatu shaxsi dañ koy xam luy tabiatu shaxsi mooy nit ki en tànk nit waaw maanaam nit ki bu ñu koy waxtaanloo bëgg nañ mu xam milieu bi ñuy waxtaanal lan la soo jëlee lu mel ni ab africain ab africain dafa am lu mu soxla ci waxtaan humeur la ci soxla humeur bu ëpput ndax bu ëppee mu jéppi la <laughs> humeur te loolu daf waxtaan daf ko soxla ak am solo mu ndax mas ngeen a toog ci Serigne Cheikh Ahmad Tidiane si mu ne asalaamu aleykum ñu naan déglu leen waaw ndax mu def daan wax ne kuy wax ak mbooloo ñu naan mbooloo ma déglu leen yow mi wax yaa war a déglu kon nit ki da koy xam nan la ñuy waxtaanee ñi dëkk ci ay cité ak ñi dëkk ci banlieue waaw waxtaan ci télévision waxtaan ci rajo waxtaan ci dëj waxtaan ci ngénte waxtaan ak i gone waxtaan ak i jigéen waxtaan ci màggal mbaa ci gàmm yooyu yëpp dafa am lu ñu tuddee euh, al mawduu al munasib al waqtu al mulaim ak maarifatu shaxs waaw aw innaas allasina yataxaddasu ilayhim nga xam ni ngay wax li ñuy ñaan lañ ndax arab nee na li kulli maqaamin maqaal li kulli maqaamin maqaal mooy li jot boo ci dul wax ah doo ànd ak nit ñi ci li xew maanaam tey fi ne su ma nekkoon di jàngale koor li yàq koor mooy soo defee nangam koor gi day yàqu kii déglu naa waaw nun nu yi ba noppi waaw kon da ngay da ngay seet li nekk munaasab li kulli maqaamin maqaal waaw soo ci waxee rek tabaarakallaahu mën naa am nit ñi dégg la xew-xew bi nit noonu la alxuraan nag moo demee noonu fii naba'ukum naba'u man qablakum naba'u man ba'dakum ilaa yawmil qiyaamati xoolal rek tey ajjuma maa ngi toll ci tafsir nit ñaa ngi waajal makka maa ngi toll ci ajug yonent bi nit ñaa ngi aj makka maa ngi jàng dund ak yonent bi ba toll ci ajam gi allahu akbar waaw loolu yàlla rekk ko man kon waxtaan ak nit ñi ku bëgg a waxtaan dangay xam ni ngay defee muxaataba shaxsan kabira am mag nu ñuy waxtaan ak moom waaw mag nan la ñuy waxtaanee ak moom ndax mag fala yaliqu an yuxaatibahu bi ma yuxaatibu saa'ir annaas ni ñuy waxeek ñépp kenn doog waxeek mag allahu akbar ni ñuy waxeek ñépp kenn doo ko mag bu ñu demee suratul xujuraat dégg ngeen la yàlla waxoon ni ngeen di waxee bu leen ko waxeek muhammad mi ni ngeen di wootante bu leen ko bu leen ko wooxe ndeke mag daa am nuñ koy waxee ak nuñ koy wooxee gone noonu foofu itam lu jar bàyyi xel la kuy waxtaan ak i mag léeg-léeg nga taxaw ci minbar bi di bayaan jàkkaarloog ñu julli ci jumaa ay mag na ci biir rax ndaw ñi lan mooy wàllu mag ñooñu toog ci waxtaan wi lan mooy wàllu xal yi toog ci waxtaan wi waaw léeg-léeg suñ mbàkki ci benn baat nga dégg mu ne ngeen baal ma bu fekkee baat bi diis na mu ne ko góor di courage et <laughs> alxuraan loolu lay wax wa man yu'tal xikmata faqad uutiya xayran kathira ku yàlla jox pédagogie sa xam dootul jeex ku yàlla jox pédagogie wa man yu'tal xikma ku yàlla jox pédagogie sa xam-xam dootul jeex kenn rawatu la allahu akbar yu'tal hikmata faqad utiya xayran ku yàlla jox pédagogie kenn rawatu la <laughs> waaw pédagogie nga xam ne danga am technique de communication fan la fréquence yi mbooloo mi ma nekkal toll buñ la waxtaan loo islam et la jeunesse ca Grand Théâtre wala ca Sorano wala ca université noo koy aborder walla yëpp rek ñooy bokk su boobaa jëlal kaset yët leen wa man yutali xikmata faqad utiya xayran kathira loolu yàlla nga ko waxoon nag ci wàllu joxe ñi daawa àbb ko ci wàllu daawa ndax yàlla ci wàllu joxe la ko wax ci suratul baqara su ma jumut wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kathira ku yàlla jox pédagogie joxe sa kër alal du fa jeex sa économie dox ndeysaan allahu akbar mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot sunu téere bii daal xuraanul karim ndeke bàyyiwul dara ni ko meer tàpp sii bi di waxe ndeysaan waaw mu ne alxuraan ndeket lépp a ngi ci biir ma ne ko waaw liñ ci xamagul sax mu ëpp liñ ci xam <coughs> waatul bu yow tamit abwaabiha ci qaayida quraaniya yooyu uh, ibnul jawzi ca téeram ba uh, saydul xaatir daf caawax lu am solo nee na jenn waay daa ci mam di waxtaan ak moom ci lu jëm ci jabaram daf koo mere walla dañoo meroonte mook jabaram mu ne ko te nag mënumaa tàqalikook moom mere na ma mere naa ko te mënuñu tàqalikoo mënuñu tàqalikoo ndax mbir yu bari mbir yu baree bari benn euh, ba ameel naa ko bor yu baree bari te dama néew ak muñ lool lool nag damay jàmbat dama compliqué jëkkër ji mooy wax dama jàmbat bari jàmbat te jëkkër ju compliqué la ay détails daal mën naa cee nekk daanaka loolu ma ñu jotale ndax léegi mu ñëw léeg mu ñëw naan ko waaw ku teg fii bale gi te man xam naa ne jëkkër ci kër yoonum nekku ci bale et cetera <laughs> cettt Ibnul Jawzi nee na ma ne ko hada la yanfa wa innama tu'til buyuta min abwaabiha dangaa jaarul ci buntu ba alquran ne woon wa atul buyuta min ba mu ne ko nu may def mu ne ko da ngay wéet ak sa bopp da ngay wéet ak sa bopp boo wéet ak sa bopp daal di waxtaan danga xam ne say bàkkaar ci wàllu ñàkk jaar ci bunt ba moo lay bëgg a topp su boobaa nga am ngànt te am ngantu tuub amaa nag tëll tëll ak yëkkati sa bopp sa sa sa sa kàddu ca kaw loolu njariñ li bariwut mu ne ko alxasanul basri daf doon waxtaan ci wàllu alxajjaaj ibnu yusuf uqubatan min allahi lakum fala tuqaabilu uqubatahu bi sayfi wa qaabiluha bil istixfaar mu ne ko mbuglum yàlla moom la teg gàddu jaasi du ko faj mbugalum yàlla moom la teg duma yu la yàlla teg gàddu jaasi du ko faj bu kenn jàkkaarloog mbugalum yàlla di gàddu jaasi mu ne ko nu may def mu ne ko istixfaar ngay jàkkaarloog moom kon ki xam ni muy waxee bu amee problème ak soxnaam bu jaaree ci wax joojee la muy faj mooy ëpp mu jaar feneen foo xam ne wóor faa jaar mu ngoog loolu la ko Ibnul Jawzi rahimahullahu jàngal euh, mu daal di jotaat ci soxnaam sa euh, tabarkàlla jàmm na ñooy seen diggante ñu daal di juboo mbokk yi euh, yooyu day am kon ci diggante ay nit ci waxtul buyuti min abwaabiha mooy kon jaaral wax ji fi nga ko war a jaarale waaw jenn waaye ca mag ña moroomam def koo ma a saaga waaw daggal koo saaga bi mu ko daggalee saaga fa wada a xaddahu al ard kooka daal di teg li xam ci suuf teg li ci suuf ne allahuma ixfir li danba allati sallattu sallatta haada bihi alayya la ilaha mu ne yàlla maanaam bi waa ji def ne yàlla daa teg yàlla maa ngi lay jéglu bàkkaar bi ma def ba tax nga nattooma kii nar maa def lii waaw xaj abdul asis nee boo toogee ci mbooloo jenn waaye romb fa ñëpp agsi ba ci toj sa bi nee na bul fayu bul ko saaga danga naan yàlla lan laa la def ba tax kii romb ñëpp ñëw pes ma loolu laa lay jéggulu mu new <laughs> Hadj Abdul Aziz la ilaha illallah waaw mu ne bu boo toogee ci mbooloo jenn waaye ñëw romb fa ñëpp ak si fekk li fi nga toog pesul kenn xanaa pes la waaw ay ndaw ko ndaa dañoo àndoon <laughs> fay ci kub kub ay ndaw kunda euh, Baye Galaye Sow imaam Ablaye Ndaw ah ak ndeysaan Cerno euh, Yoro Ja ñu ànd dañ doon rëbbi nag ay naat wala ay cokkeer ngeen baal ma ñu dem ci Saaliwu Jaw ministre ne ko defal ñu kubéer gu yam ca paxum paxum lëmm maanaam paxum janj ba <clears throat> pax mi nag daa xaw a rëy toll ni fenêtre Saliou Diaw nattal leen benn kubéer gu ca xaj defar leen ko ci wàllu dénk wutal leen nag fu ñuy ubbee pour xool léegi pax mi ci la cokkeer yi daan nekk bëri ci lool tey nag mu tàng cokkeer yi dugguñ ca gaynde dugg ca ñoom ñett ñu ànd rek agsi na ca kubéer ga ne ko ca këpp gaynde gi naan kër kër kër kër kër kër kër ah ñu xam ne lii moom du cokkeer <laughs> ñu seen jenn waay rek ju fa ñu ne ko hee kaay téyel ñu fii ñu fàqi ñu fàqi ay ay yar ay yet ndax cokkeer yi dañoo dañoo bari waa ji xamu ci dara mu ñëw téyel leen ñu samp seetu xel ba sori ne ko gaynde la ne ko gaynde la waa ji daal di ndeysaan summi ay dàllam roof ko ci kaalaam laxasu ba jëkk ne fa ne ne kubéer ga tegg samp xilam gaynde gi jotu ko topp waaw ndax moom da moom tam daa tiit paa yooyu ko defoon coup bi nag ndaw ko ndaa beeg ñu sant ki sant saw toog ca pénc ma ca jàkk ja seen waa ji mun a tëll ca bopp bopp dëkk ba ñëw imaam daan ne gis ngeen kee di ñëw bu ngeen ci bu ñëw di ma pes ah ñëpp toog rek waa waaxoo waaxu ba agsi rek toj na bi tëll mooy lu ma leen waxoon waaye foofu noonu kiñ fekk mu toog ci ñëpp ñu pes ko moom war jàpp ne mbaa daa am lu ma def waaw loolu la imaam waxtaane fii léegi tabarkalla mbokk yi inna haza al qur'ana yahdi lillati hiya aqwam fu mu nu teg foofu la bu ñu dégloo waxtaanu àjjuma samedi dimanche incha allah dana ñëw ci tomb bu ci tege te mooy waxaatilu fi sabilillah